te li nga xam ne mooy ñetteelu vague bi dafa mel ni xale yu ndaw yi ñoom moom ñetteelu vague bi ndax ñetteelu vague bi bëri na ci ay xale yoo xam ne maanaam tëdd nañu ci lal hôpitaux yi te la ca gën garaaw maanaam ay cas garaaw la ñuy amee yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba des sàll mooy woppi coronavirus ci jamono ji maanaam li muy def ci réew mi ma ngi def lu dara la ndax ci week-end bi lu toll ci fukk ak juróom ñaare ci ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan am na lu toll si junne ak ñeenti téeméer ak fukk yoo xam ne amee nañu doomu jàngoro ci yéen kaay gi du l'observateur nee na en tout cas soo muy tuulee caaf dina xëm làmbaay ñaawaan ndax lal yi nga xamante ni moom la ñu def oxygène lal yooyu yëpp jamono ji dañu ko occupé maanaam jeex na tàkk yéen kaay gi délibération ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wallu wér gi yaram ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr nee na situation bii nga xam ne moom la ñu nekk maanaam situation la boo xamante ni bu garaaw a garaaw la ci centre traitement yi yéen kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa docteur Mamadou Dieng nee na askanu Sénégal takk leen masque yi jël leen mesure barrière ndax nag jamono ji boo muy tulee njaw ma ngay wéy di dasu xambe na yéen kaay gi de Les nee na ñi nga xam ne ñooy takk der yi nee ma waa police danañu amal ay opération ci ñi nga xamante ni dañu jël mesure barrière yi ci bërëb yi nga xam ne fa la ñuy defee lu jëm ci wàllum jënd ak njaay police dina fa dem salle de spectacle yi foofee tamit police dina fa dem rawatina nag ci marché yi bërëb bu njënd ak njaay yi yéen a kaay gi di réew mi quotidien Abdoulaye Diouf Sarr moom nag daat nay weddi nee na musuta am rupture ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum oxygène yéen a kaay gi di la quotidien ñu koy fekk fa koo xam ne ci armée la yoof yi lay liggéeyee maanaam ki nga xam ne mooy gaspax xam ne moom la gis ne ay enterrement maanaam musu koo gis nee na armeelu Yoff yi jamono ji la ñu fay denc ci ay nit maanaam jéggi na dayoo su dee nag ki nga xam ne maanaam mooy yor lépp lu jëm ci wàllum armeel yi di Saint-Lazare nee na mbir mi jamono ji bu continuer maanaam ñaari at armeel yi danañu ko tëj yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy bàyyi mbir moomee wax ci recours bi nga xam ne opposition bi dugaloon nañu ko ci conseil constitutionnel ngir na nag contester li nga xam ne mooy code pénal ak code procédure pénale bu yees bi te di koy rejeté loole nag Ismaïla Madior Fall nee na conseil constitutionnel amul lenn lu mu violé violé wul dara conseil constitutionnel Ismaïla Madior Fall nee na ci dëggam la nekk te jamono ji sax maanaam dañu ko waroon a félicité dañu ko waroon a félicité maanaam daal di koy jaajëfal ci liggéey bi nga xam ne def na ko amul benn scandale amul benn scandale boo xam ne conseil constitutionnel daan na koy def loolee loole yi Ismaïla Madior Fall yéen kaay gii di Walf Fadjri ñu koy fekk fa Amadou Ba bu Pastef nee la gros malchance de Ismaïla Madior noppale ñu xëy fekk fa Moustapha Diakhaté ne na conseil constitutionnel la jamono ji nag attentat la def jëmale ko ci askanu Sénégal yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye moom nag mere na lool ki nga xam ne mooy Ismaïla Madior Fall ba tey ci biir journal bi principal tailleur constitutionnel bu Macky Sall ma ngi tudd Ismaïla Madior Fall moom daal nu ko Macky Sall bëggee rek nu ko Macky Sall bëggee Ismaïla Madior Fall defalee ko ko noonu yor ab ciseau ma maanaam di dagg di natt si Macky jot ko mu daal moo taxit gars yi nee exceptionnel de Macky Sall Ismaïla Madior Fall gi de la Tribune nee na Ismaïla Madior Fall waxi démbam ak waxi tayam méngoowul benn yoon rawatina ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi avant ñuy def référendum ak biñ defee référendum ba pare yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ñaari feccikatu Wally Seck yi nga xam ne ñoo doon fóonante te ñu jël leen dugal leen ci kaso bi jamono ci maanaam bàyyi nañu leen ñu féex yéene k gi di enquête ak Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu benn at ginnaaw bi journaliste bi gi news xëy dañu xibaar naan ñu ndaw ñi nga xam ne ñoo bokk ca APR te dëkk ca diwaanu Saint-Louis ñoom nag ñoo ngi sàkku Mary Teuw Niane tekki ndombal tànkam ci président conseil d'administration bu Petrosen ndax Mary Teuw Niane mi daal maanaam dafay ŋàññi nguur gi yéen gi de la ñu xëy fekk fa Madi Touré moom nag daat nay wax ne sport Sénégal ñeenti at rek laa soxla pour jubbanti ko yéen gi ñu xëy fekk fa maître Alioune Aba Talib Gueye mi Senghor ma ngi koy wax maanaam consensus hypocrite la tegewul fenn Augustin Senghor ci boppam moo war bàyyi football bi ay giraawaale ki njombe kese la fi Augustin def amul benn résultat boo xam ne def na ko fi man nag maître Aliou Abou Talib Gueye jamono ji nag maa ngi encouragé bu baax a baax Madi Touré ngir nag mu maintenir li nga xam ne mooy candidature am yéen kaa gi di sunu lamba ñu koy fekk fa mbay booy mi nga xam ne mooy coach bu B52 daan wax ne Balla Gaye numéro 2 bu songee Bombardier Bombardier dina ko dóor mu wàcc société nationale de